alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokku Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wollum xarala gi mooy jaawo jàlloo ginnaaw buñ sante yàlla buur bi tabaraka wa taala noo ngi julli di selmal ci sang bu tedd bi te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk sant yàlla buur bu ñu xéewalal ñaari xéewal ya nga xamante ne duñu tay di ko fàttalante mbokk yi saa ndax loolu lam ñu wax ci alquran ne ñu la in shakartum la azidannakum bu ngeen reconnaître sama xéewal yama leen di xéewalal dinaa leen ko yokkal te dinaa leen ko yokk di dottil duma deñ di leen baaxe samay xéewal fek yéen a ngi koy reconnaître waaye ñu xéewalu yàlla mbaaxu yàlla ci mbindaafunam yi du leen toppee seen melokaan kon lañu war mooy ñuy sant yàlla ci ay xéewalam yamuy xéewalal doomu aadama yi rawatina yow jullit bi da nga war a sant yàlla gannaaw buur yàlla tabaraka wa taala gannaaw bam la xéwal ju toll ni nga dégg noddkat bay nodd ci jàkka ja ci waxtuy fajar mu naan la julli moo gën nelaw ba ngay nelaw ñu ngi waxtaanoon ak yéen keroog yéen a ngi fàttaliku ba yenentu bi ne sallallahu alayhi wa doomu aadama bi rawatina jullit bi bu taxawee ci kanamu boromam mu daldi yëkkati ñaari loxoom tudd màggaayu yàlla ne allahu akbar jamono ba muy tari fatihatul kitaab mu ngi discuter ak boromam moom la muy wax xam na ko dégg na ko waaye la ko boromam di tontu loolu di ko dégg ba tax na yenent bu ñu xamal discussion boobu nu muy demee gannaaw bi nga jàngee alhamdulillahi rabbil alamin am lala yàlla wax noonu nga koy jàppee aaya par aaya ku dem suñu waxtaanu gaaw bi dinga fekk waxtaan bi nekk ci waxtaanu gaaw bañ noon waxtaan ak yéen kon gannaaw bu doomu aadama bi jóge ko ci jëfandikukaay xiwal ju toll ni lakko buur yàlla tabaraka wa taala xéewalal muy xéewalu jaamu yàlla bañ doon joxe waxtu su néew ci ginaaw kon yow lala war mooy danga war a sant yàlla gannaaw ba mu la mayee nga ximiliku ci nelaw bam la xéewalal ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ci xeet bi moo ñu ne képp ku yàlla xéewalal ba nga jógee ko jëfandikoo la nga xamante ne mooy xéewal jooju lala war nga tudd ko mooy baat yi nga xamante ne moom la yenentu bi baaxee askan bi te mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur nga war a baat bu toll ni nga ne mboolem xeetu cant yu kawe ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moom ma delloo sama ruux ginnaaw bu mu namee ci sama jëmm ji dee bu ndaw waaye nag ëllëg bu ñu jeexalee ci dund bi taxale kook dundu àddina si ci moom yàlla lañuy dellu subhaanahu wa ba tax na jamono bi nga taxawee sa kanamu boroom ngay discuter moom nga jàng faatiha mu am lam la tontu nga jàng boppu saaru fatiha ne alhamdulillahi rabbil alamin buur yàlla tabaraka wa daldi la tontu nga ne arrahmaanu mu tontu la noonu nga koy jàppee ba keroog ngay àgg gayril maxdubi alayhim wala daalin mu doon discussion bi nga xamante ne day jaar diggante doomu aadama bi rawatina yow mi di jullit ak sa boroom subhaanahu wa taala mi bind kon ci mbaaxu yàlla ak ci kattanam subhaanahu wa tey ñu fas yéene dikk ak ci at bu bees bi nga xamante ne ca la nekk ñu daldi di digmal waxtu su mag bi nga xamante ne mooy waxtu soo xamante ne mooy tamxarit te mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit fukkeelu fan ci weeru tamxarit ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam am na lam ñu baaxee ci fukkeelu fan ci weeru tamxarit fukkeelu fan ci weeru tamxarit nag dafa am événement bu mag bafa xew waaye nag ànd ak loolu yépp ñu si yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa mooy woor ko waaw woor fukkeelu fan ci saxru almuharram lañu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal te moom la ñu bàyyee comme sunna soo xamante ne mooy la gën ci yow jullit bi leneen ci def lu dul koor a loolu moom leneen la waaye la ñu su yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa ci woor fukkeelu fan bi loolu mooy sunna soo xamante ne mooy sunna su alquran eh, yonent saxal ci xadis sallallahu alayhi wa kon mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ñun ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 yéen a ngi fàttaleku démb bañ doon taxawandi ñoo ngi taxawoon ndek yéen ci ngénneel ba nekk ci julli ci boppam waaye nag rawatina julli joo xamante ne doomu aadama bi rawatina jullit bi mu ngi koy def jamono bi nga xamante ne mu ngi nekk ak di discuter boromam mi ko bind ndax loolu la ko wax ne ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni kon ñaareelu xéewal bi nga xamante ne moo war a tax jullit bi sant boromam tabaraka wa taala du leen na lu dul la nga xamante ne mooy ne mooy nelaw bem ko yenkeewal su ko defee mu daal ko sant nelaw jooju ndax buur bi tabaraka wa moo ñu ne ci suratu naba wa jaalna maa leen defal nawmakum seen nelaw bi nelaw subaatan mu nekk dallukaay ba ngeen di amee ci nelaw woowu mbokk yi tey di juróom ñetti fan ci weeru tamxarit muy dibeer bi ñu nekk nii di tey jii ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante tamxarit ñaari fan fukkeelu fan waaw am na ñoo xamante ne desendan desendina seen digganteeg fukkeelu fan wi ñetti fan am na ñoo xamante ne deux jours moo des seen digganteeg tamxarit di fukkeelu fan bi am na si ñoo xamante ne trois jours moo des seen digganteeg fukkeelu fan ci weeru tamxarit bi te mooy waxtu bésu fukkeelu fan bi ala kulli xaal tey ci ñenn ñi mooy neuvième jour bi tey ci ñenn ñi mooy huitième jour bi waaye am na si ñoo xamante ne bi léegi mënees nañoo wax ne tey mooy seen seen waaw seen huitième jour seen juróom-ñetti fan mbokk yi tey di juróom-ñetteelu fan di huit jour huitième ci weeru tamxarit des na suñu diggante fukkeelu fan wi ñaari fan tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille quatre quarante-six ñaan ba ñëw ci calendrier ba bañuy wéttalanteeg yéen mooy ne yow jullit bi danga war di dëkk say yoxo di ñaan sa borom tabaraka wa ne ko allahumma ihdini li maxtulifa fiihi min alxaq bi iznik fa innaka tahdi man tashaau ila siratin mustaqim moo ne yow yàlla maa ngi tàllal samay loxo di la ñaan yàlla nga ma orienté nga jubal ma ci yoon bu jub bi nga xamante ni nit yaa ngi wuute jëmale ci yoon woowu yàlla nga ma wanale ki yoon woobu mu nekk yoon bu dëgg ci sa ndigal waaw ndax yow yàlla yaay gindi képp ku la soob teg ko ci yoon bu jub bi kon ñu nit ñu ngi ñaan ne ko allahumma ihdini lii xtulifa fiihi min alxaq bi isnik innaka tahdi man tachaau ila siratin mustaqim ndax lii yàlla rekk moo ko man keneen ku dul yàlla mënu ko ndax nekkut ci nguuram nekkut ci loxom ba tax na buur bi tabaraka mi ko yore moom dong nga wara ñaan ñaan wi su ko defee loolu mooy la nga xamante ne moo nekk la jullit bi di sàkku saa su ne su ko defee loolu mooy ñaan ba ñëw ci kalandiri bi ci bésu dibir bi tey ji yal nañu ko yàlla nangul yal na buur yàlla déppale suñu ñaan bi ak waxtu nangu ñaan ya nekk ci waxtu wi amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot bésu dibir bi di tey tombek juróom ñetti fan ci weeru almuharram moone des na suñu digganteeg fukkeelu fan ci weeru tamxarit ñaari fan moo tombe gàddaay yonent bi 1446 di atum junni ñeen téeméer ñeen fukk ak juróom benneelu at bi fukkeelu fan baa ngi nii di dégmal di ñëw yàlla nañu fi fekk waay buy dem yal nañu fi bay te lépp lañ fa jaamu yàlla yal nañu ko buur yàlla nangul amiin rabbal alamin mbokk yi xadis ba am ci almunaak ba ñuy wéttalante gi yéen tey jii moo ne mooy xadisu ibnu abbas radiallahu anna nabiya sallallahu alayhi wa lamma qadima almadinata wa wajadahum yasuumuuna yowman yani ashura fa qaaluu haada yowmun adim wa huwa yowmun najja allahu fihi muusa wa aghraqa ala fircauna fa saama muusa shukran lillahi fa qaal ana awla bi muusa minkum fa saamahu wa amara bi siyaamihi rawahu buxaari mbokk yi bésu dibiir bi di tey xadis ba nekk ci calendrier ba ñuy wéttalantek yéen ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu ibnu abbasin radiallahu an ibnu abbas yal na ko buur yàlla gërëm mook baayam nee na nak suñu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima almadinata keroog ba mu demee madina wa wajadahum yasuumuuna yowman yaani ashura mu fekk waa madina di alyahud ya fa nekk ñuy woor bés bi nga xamante ne mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit bi maanaa mooy ashura mooy fukkeelu fan bi di dixième jour bi fa qaalu ñu ne ko haada yowmun adim bés bi dadi bés bu màgg wa huwa yowmun najja allahu fihi muusa bés bi de mooy bés bi nga xamante ne ca la yàlla musal yonent yàlla muusa wa agaraga aali firawn ca la yàlla labal waakiru firawna ak ñi ko toppoon comme bés bi kom bés ni ki la yàlla musal yonent yàlla Muusa ci mbugalu firawn mu labal firawn fa saama muusaa shukran lillah yonent yàlla daldi woor bés bi ngir sante ko yàlla fa qaal yonent bi ne leen ndegem bi da di bés ba yalnoonti yàlla Muusaa muccee ci Firawn da di bés bi nga xamante ne cala yonenti yàlla Muusaa ak nitam yi am sen indépendance ci waa kiiru Firawn yàlla labal Firawn ak ña toppoon ba tax na yonenti yalla Muusaa daldi di woor bés bi ngir sante ko boroomam kon yonent bi ne leen ana awlaa bi muusa minkum man maa gën a yey muusa ci yen ah man maa gën a yey muusa ci yen ba tax na yonent bi tamit daldi wax lii bu leen ne man maa leen gën a jege muusa man maa leen gën a nekk ku gën a jege Muusaa ka yen fa saamahu yonent bi daldi woor bés wa amara bi siyaamihi mu digle ne nañu woor bés bi rawahu buxaari buxaari moo solo xadis bi mbokk yi bu ñu def taaliqaat bu ndaw rekk ci la tax ñu wara a xuusandi ci xadis bi dinañu gis ne ndeke xadis bi dafa am relation bu mag ak aaya alquran ya buur yàlla tabaraka wa taala baaxee bi suñu téere bi mu ne ko ci ne fàttalikul keroog na nga keroog ba yàlla musale waa firawn ci mbugalu kàccoor bu mag ba nekkoon seen jamono ñu nekk di dund ak moom di firawn keroog buur yàlla tabaraka wa taala ñu demee xool ci alquran dinañ fa fekk ca suuratul ibrahim buur yàlla tabaraka wa di baaxe yonentu bi sallallahu alayhi wa ne ko na nga fàttaleku keroog ba yàlla musalee firawn astafirullah ba yàlla musalee yonentu yàlla muusa ci waa këru firawn ba yonent yàlla Muusa mucc ak njabootam ak ña topp ci waa këru moo tax boo demee xool ca suuratul baqara ak suuratul ibrahim du ñàkk nga fekk fa ñaari aaya yay feddali di dëggal la yàlla buur bi tabaraka baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moone ne da ko ne na yow sama ndaw na nga fàttaleku yow sama yonent na nga fàttaleku keroog ba yàlla buur bi tabaraka wa musale yonent yàlla Muusa ci waa kër Firawna mu ne ko yaa bani israil yéen waa banu israil mooy xeetu yonent yàlla muusa yàlla suñu borom tabaraka wa taala ne leen utkuru na ngeen fàttaleku na ngeen sant waaye na ngeen doyloo rek di fàttaleku di sant buur bi yàlla tabaraka wa nicmati allati an amtu aleykum xéewal jamaleen xéewalal te keneen ku man yàlla amul kenn ku leen ko xéewalal kon xéewal ba yàlla xéewalal waa banu israil dañ ko war a sant buur yàlla nee na wa awfu bi ahdi te ngeen matale kóllëre ba ma kóllërante ki yen waaye na ngeen matale kullëre ba ngeen kullërenteeg man yàlla di seen borom man yàlla de bu ngeen matale kullëre ba ngeen kullërenteeg man uufi bi ahadikum manit ma matale kullëre ba ma kullërenteeg yéen te ngeen xam ne wa iyaaya farhabuuni na ngeen doon ki am xemmemteef di sàkku lépp li ngeen soxla ci seen dund ci man yàlla ngeen doon ki may jaamu ngeen doon kiy way samay ndigal moo tax boo demee xool bur yàlla ne leen yaa bani israil udkuru nicmati allati an'amtu alaykum wa awfuu bi ahdi uufi bi ahdikum wa iyaaya farhabuun yéen waa banu israil na ngeen dëkkee di sant xéewal ba leen yàlla xéewalal xéewal yooyu bokk na ci keroog bum mu leen musalee ci waa firawn toor bañ leen di tek loraangeeg punition yeeg bu mu jaam bañ leen jàppee keroog ba ka yàlla daggee xéewal ba ngeen nekkee kenn ku dut yàlla mënu koo def ku dut yàlla mënul dagg mbuumu jaam jooju ku dut yàlla mënut leen texel ci mbuumu jaam jooju kon ndegem yàlla moo leen musal ci mbugalu firawn ngeen texe ak seen yonent bi di Muusa kon nangeen sant yàlla ci xéwal jooje bu ngeen ko matalee nag yàlla neena manit ma matal dig la ma ne dinaa leen ko dottil ci xéewal ya nekk faman man waaye nag na xam ne tamit wa iyaaya ci man yàlla rekk la farhabuun na ngeen am xemmemteef ne ci man yàlla dong ngeen di delloo waaye nag am na beneen aaya bay leeral la tax yàlla musal waa banu israil ci mbugalu firawn aaya boobu moo nekk ci suratul ibrahim fa buur yàlla di waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi ne ko wa id qaala muusa li qawmihi idkuruu nicmatallahi alaykum id anjaakum min aali firawn yasuumuunakum suu al adaab wa yuzabbixuuna abnaakum wa yastaxyuuna nisaakum wa fi daalikum balaaun min rabbikum cadiim buur yàlla tabaraka wa taala keroog ba muusa alayhi salaam diskis ba muusa alayhi salaam doon discuter ak xeetam keroog discussion boobu buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di ko baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa ci suñu téere bu mag bi di alquranul karim ci suratul ibrahim yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttalekul keroog wa id qaala muusa ba muusa waxee li qawmihi xeetam ne leen udkuru na ngeen fàttaleku na ngeen sant nicmatallahi xéewal yàlla aleykum xéewal bam leen xéewalal ban xéewal la yàlla xéewale waa banu israil ku ko bëgg a xam bàyyi ñu xel ci émission fajar waxtaanu fajar bay jàll fii si Rewmi FM 97.5 keroog ba Moussa ne xeetam ne leen na ngeen sant xéewalu yàlla ca xéewal yam leen xéewalal xéewal bi mooy lan is anjaakum keroog baleen yàlla musale min ali firawn ci waakiru firawn musal bi lu doon la leen yàlla musal mooy yasumuunakum ñu leen doon teg di leen toroxal su al mbugal ju mitti mbugal ju doyadi bokk na ci mbugal yooyu bari na lool waaye yàlla tànn ci ñaar rekk baaxee ko yonent bi bu njëkk bi mooy yuzabbixuuna abnaakum bokk na ci mbugal ba firawna ak waakiram doon lor waa këru Muusa dañ doon rey seen xale yu góor ñi ku jur di góor dañ ko daan rey wa yastaxiyuuna nisaakum dañ doon dundal xale yu jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkeewul jamono jooju waaye yàlla ma ko fekkee ca yonent ba mu jaaroon ak buuru kàccoor ba mu tombeloon ci jamono yonent boobu di Muusa alayhi salaam ba mu doon wax xeytam ne leen sant leen yàlla keroog bu yàlla dikkee ba mu dagg bu mu jaam ba leen Firawna doon loo mu di leen teg toor ju mel ni ak xeyti mbugul ju metti yu bari lool bokk na ci yu zabbixuuna abnaakum firawna daanoon na rey seen doom yu góor ñi seen xale yu góor ñi daanoon na leen reyndi wa yastaxyuuna nisaakum mu doon bay di dundal di boyal képp ku jur di jigéen yonent yàlla Muusa ne leen wa fi daalikum balaaun min rabbikum adim loolu la yàlla namm ci yeen mu di leen teg natt bu ju ni natt bu bàyyeekoo fa yàlla mu doon nattu bu mitti nattu bu mag waaw yàlla ci coobareem mu bàyyi firawna muy doxal système bu bon système bu kenn dut mun a naataable lii alquran bu ñu ko waxutoon kenn du ko xam kenn du ko dégg ndax amul kenn ku ñu ko war a mën a nettalil bokk na ci ñuy rey xale yu góor ñi ñuy bàyyi xale yu jigéen ñi mu doon natt bu métti natt bu jéggi dayoo baleen yàlla nattoo waaye keroog ba firawna labe ci géej gi yonent yàlla Muusa mucc ak ñamu àndal yàlla bés ni ki fan ci tamxarit la ko tombel Muusa daldi woor bés boobu mu daldi bàyyi doxalin bi ci xeetam keroog ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk see waa ci seen dëkkuwaay mu fekk leen ñoomit ñuy doxal doxalinu yonent yàlla Muusa mu laaj leen li ngeen di woor ni lu mu doon ñu ne ko bés ni ki la yàlla musal yonent yàlla Muusa ci mbugal ba Firawna doon teg ci kawam ak xeetam waaye bés ni ki tey ci fukkeelu fan ci weeru muharram di weeru tamxarit la yàlla labal Firawna Muusa mucc ak xeetam Muusa woor ko mu digle ko ñu di ko woor moo tax ñu nit di ko woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen man maa gën yey ci Muusa ka yen maa leen gën a jege yonent yàlla Muusa kon yonent yàlla Muusa lépp lu mu def maa leen ko gana a yey di ko def yonent bi daal di woor bés ba mu digle ne nañ ka woor waaye comme jullit yeeg yahudi jullit yi ak juif seeni doxalin dafa war a am tuuti distinction ak wuutele yonent bi ne ba ma fi yàlla bàyyee ba déwén si dinaa woor juróom ñeenteelu fan bi ngir wuutele ak juif seeni doxalin a ah, loolu nag fekkut yonent bi ci jamono am yeneen réewaaya ñu ne dane bu ma yàlla bàyyee ba déwén dinaa woor fukkeelu fan bi ak benn maanaam onzième jour bi dinaa ko woor waaye yonent bi fekkee wu ko kon yow mi di jullit bu dee da ngay woor tàmbale ko ci neuvième jour ba ci dixième jour bi bu dee da nga bëgg a woor dixième jour bi nang ci tegaale onzième jour bi bu dee neuvième jour bi jàppandiwul ah dixième jour bi moom bum la bum la faat moo ngi nii ñu di ko seen muy ñëw yàlla buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi lépp lañ fa woor tamit yal na ko buur yàlla nangu incha allah amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala an yataqabala minna wa minkum saalihu amalana ñu di leen wax ni déwénati leen yal nañu ko fekkee ay at yu bëri allahuma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umuurina allahuma ixfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu